asalaamaaleykum mbokk ya xarit yi maa ngi leen nuyu di leen ziar man la seen mbokk euh, Maodo Kane di jàngalekat ci daara ju kawe ji naan université Gaston Berger de de Saint-Louis man maa ñëwaat man maa ñëwaat ak yéen tey ci. Euh, série bi ma tuddee informatique pour tous donc euh, voilà maa leen diggoon ne dinaa àggale épisode épisode 4 bi donc ndaxte épisode 4 bi dafa xawoon dafa waroon a gudd ma ne dama koy euh, séddale si ñaari pàcc yi donc benn bi waxoon nañ euh, dama euh, ñu ko kiiyee programme bi lañ tëraloon donc waxoon waxoon naa si Euh, définition système d'exploitation Windows nga xam ne donc euh, ordinateur yu bëri moom la ñuy utiliser yéen ñu bëri moom ngeen utiliser ak euh, waxoon naa leen lu muy tekki waxoon naa leen aussi histoire bi léegi histoire bi nag dafa xaw a gudd tuuti quoi ndaxte bañ ko defaree ba léegi dafa xaw a yàgg quoi léegi en fait maintenant ma waxoon leen troisième partie bi dinañ gis dinañ def. Euh, dinañ essayer découvrir en fait système bi quoi donc xool système bi nan la organiser woo surtout système bi nga xam ne moom mu tudd Windows 10 waxoon nañ en fait donc dañuy dañ koy essayer découvrir ñu wax leen euh, yan pàcc moo ci nekk pàcc bi ci nekk nu mu tudd euh, affaire yooyu noonu waaw loolu lan la ñu waxoon quoi waaw loolu nag donc laa defoon si beneen pàcc yi si épisode 4 bi voilà donc tey moom si loolu la ñuy dugg ñu jëm si jëm si waxtaan tuuti quoi gis nga yëpp da waxoon nañ ko ba pare histoire bi voilà léegi tey euh, premier pas bi léegi mooy découvrir euh, découverte bi quoi donc ñu xool nan lay demee léegi euh, système bi soo ko installé sa ordinateur ba pare maanaam da nga si soo si dugg pour commencer liggéey dès nga taal sa ordinateur bu fekkee ordinateur bi système boobu noonu la yor mooy Windows diis bi lii ngay njëkk a dajal donc mooy interface bii nii. moom ngay jëkk a dajeel interface bi nag donc mun na changer ndaxte image bi nekkul ne euh, photo bii nii nekkul ne chaque jour moo ci nekk quoi mais en en général lii la ndaxte fii dangay ngay euh, si côté ndeyjoor bi euh, côté càmmoñ bi <laughs> excusez-moi donc samay olof nag maa ngi leen fàttali ne leerul trop donc côté càmmoñ bi da ngay gis ne di ngay gis ne en fait heure bi moo ci nekk ak ak ak ak date bi quoi voilà. léegi eh, si digg bi nii di nga gis benn image léegi pour nga dugg si biir commencé liggéey nag da ngay cliquer quoi da nga siy bës ak sa souris soo bësee nag léegi lii ngay dajal soo dajeeg lii nag danaan la nga joxe sa sa kii nii quoi sa sa sa mot de pour dugg bu fekkee ne ordinateur dafa am mot de passe da ngay saisir sa mot de passe bu fekkee nag moom da ngay dugg directement donc soo cliquer da ngay dugg directement voilà donc soo duggee nag léegi lii ngay daj première interface bi ngay daj interface de travail bi ngay daj donc soo duggee moom la ñuy wax bureau. léegi bureau bi nag donc dafa nekk ay pàcc yu bëri en fait bureau bi dafa nekk ay pàcc yu bëri donc am na loo xam ne moom lañ tuddee arrière plan après dinaa leen ko wan si sama système bi mais dama leen koy wan si si euh, photo bi ba pare ndaxte euh, lépp li ma bind fii nii en fait donc dessiné naa ko fii nii léegi système boobu léegi euh, fii nii moom mooy bureau bi pàcc bi ngay njëkk a daj bu fekkee ne da ubbi danga nga bëgg da ubbi ordinateur bi léegi fii nii arrière plan lañ koy tuddee mooy photo bi nga xam ne. moom mooy euh, voilà moom moom ngay moom ngay xool si ginnaaw ko moom moo nekk nii moom la ñu tuddee arrière plan photo bi aussi donc mën nga ko changer heure bu la neexee waaw nekkul ne photo bi moo ci nekk bu ba euh, chaque jour donc par exemple soo gisee sama ordinateur gis nga euh, sama bureau man mi ngi nii bon xaaral ma affiché menu menu bi sama bureau mi ngi nii gis nga menu sama bureau soo ko xoolee bu baax gis nga nekkul ne même image laa yor fii nii ko tu vois maanaam donc image bi mën na changer mën ngeen say def image bu leen neex ah. léegi am na beneen euh, partie boo xam ne moom la ñuy wooyee les icônes icônes yi mooy nekk moo nekk euh, nataal yi nii ngeen gis ci bureau bi quoi si si kaw nataal yi nii léegi nataal bi mun na nekk euh, ay données hmm? comme par exemple mun na nekk texte mun na nekk video mun na nekk photo ah donc voilà donc ay données la loolu mooy données numériques mun na nekk aussi ay répertoire répertoire yi nga xam ne soo ko ubbee da ngay gis en fait ay ay ay ay ay données si biir répertoire mooy classeur yi nga xam ne ñoo lay permettre nga. nga denc say information mun na nekk aussi benn application comme yii par exemple yii yëpp ay application la gis nga yëpp ay application la soo si double cliquer da ngay da lay ubbil application non mais lii image la par exemple gis nga lii application la application la application yi nga xam ne nag ñoo nekk si biro bi yooyu ay raccourci lañ leen di wooyee quoi raccourci application la tu vois donc icône nag euh, jàpp leen bu baax mën na nekk benn répertoire répertoire pour rappeler leen mooy dossier yi nga xam ne moom ngeen di denc seen données mun na nekk ay données carrément comme par exemple mun na nekk texte comme par exemple yi ay texte la mun na nekk aussi ay euh, voilà donc euh, mun na nekk aussi ay application donc yooyu noonu moom mooy yooyu noonu moom mooy ay données quoi tu vois voilà léegi euh, voilà loolu moom mooy loolu mooy données yi léegi loolu mooy icônes yi alors donc si bureau bi aussi di nga fa gis benn menu bu ñu bu ñu tuddee menu démarrer comme menu bi dès que nga dugg rek menu bi moom day affiché wu ko donc menu bi la ñuy tuddee menu démarrer menu démarrer donc bouton bi mooy permettre nga affiché ko bu fekkee ne gisoo ko soo cliquer si bouton bii nii dina permettre nga affiché ko gis nga donc menu démarrer bi nag dafa am ay ay pàcc yu bëri donc menu démarrer lu mu lay permettre nga lancer ay application comme par exemple fii nii da ngay gis liste application yi nga xam ne euh, sa ordinateur bi moom la moom la yor donc application yi mooy logiciel d' application yi ngay utiliser pour liggéey ndaxte saa yooyu def dara si ordinateur bi yaa ngi utiliser benn application donc mënoo liggéey benn liggéey boo xam ne utiliser wu application donc application yi nii mooy yi nga installé sa sa ordinateur bi li yi nii daf koy classer par ordre alphabétique li ñuy wax par ordre alphabétique daf koy daf koy ranger ba nga xam ne application boo si bëgg rek dinga dinga ko di ko di ko teel gis voilà si turam bi léegi am na pàcc boo xam ne aussi da lay wan en fait comme fii nii soo cliquer si bouton bii nii mooy bouton démarrer bi aussi da lay permettre nga gis. Euh, compte bi nga xam ne moom nga connecté woo ah da ngay gis compte bi nga par exemple comme fii nii maa ngi connecté wo si compte section infographie gis par exemple fii nii ay répertoire gis fii aussi benn bouton bouton bi lay permettre nga fay sa ordinateur nga taal ko la nga fay ko donc soo cliquer fii nii gis nga da ngay gis ne donc mën nga ko mettre en maanaam pour nga pour nga def pose mun nga ko fay mun nga ko démarrer redémarrer aussi maanaam taal ko mu démarrer waat automatiquement. donc loolu noonu moom mooy nekk si côté bii nii soo bëggee masqué côté bi nga cliqué rek donc mu masqué wu voilà donc lii nag moom ay service la quoi service yi en général nag donc balaa nga koy mën a utiliser foog nga am connexion internet donc ay service la peut-être service am na service yoo xam ne après daañu si ñëw donc ñun moom dañ leen di wax système bi nan la organiser woo rek mais duñ dugg carrément si si si détails quoi sinon kii bi day gudd am dina am yeneen yeneen épisodes yoo xam ne bu si nekk donc dañ koy dañuy dañuy toj lan la lan lan lay jëriñ voilà donc am na aussi benn kii bi ñu naan barre des tâches barre des tâches nag moom moo nekk nii si suuf mooy ren mooy mooy barre bii nii si suuf nii barre bii nii si suuf barre bi soo ko gisee aussi am na ay pacc yu bëri déjà bouton démarrer bi si la nekk fii nii aussi fi la ñuy defee ay recherche comme par exemple tey soo bëggee recherche benn application seet benn application boo xam ne gisoo ko si liste bi mais xam nga ni mu tudd da ngay tàppee turam fii rek mu génneel la ko comme par tey nii su ma defoon euh, Photoshop gis nga donc am na euh, damay tàppee commencement tour bi rek léegi da lay defal ay suggestion wanal la liste application yi nga xam ne en fait seen tour dafa commencer par photo comme li ma tàppe fii nii donc loolu noonu en général moom lay jëriñ quoi mooy barre de bi fii aussi moom la ñuy wax section médiane section médiane bi en général dalay lay permettre en fait nga nga afficher application yi nga xam ne moom nga ubbi ak app ak ay raccourci application aussi mën na afficher ay application mën na aussi afficher ay raccourci application yooyu yëpp après daañu si ñëw ay détails la donc toujours pour rappeler leen ne nekkul ne dañuy jàng fonctionnement bi mais dañ leen di wax rek système bi nan la tëddee quoi donc nan la organiser wu fii nag donc moom la ñuy wax section médiane euh, zone de notification excusez-moi zone de notification bi donc en général da lay wan par exemple sa état batterie donc connexion bi aussi donc noo connecté woo hmm? fi woo donc wan aussi en fait euh, langue clavier bi wan la date beeg heure beeg yooyu yëpp quoi donc fii nii nag la ñuy wax euh, zone de notification tu vois voilà donc pàcc yooyu nag moom moo nekk si bureau bi arrière plan wax naa leen lan la icône yi wax naa leen lan la mu menu démarrer bi wan naa leen ko bar des tâches bi aussi wan naa leen ko aco léegi rek ñu dem ñu xooli explorateur de fichier li nga xam ne en fait moom moo lay permettre ngay gis say information yi ngay denc ngay nga organiser sa information yi waaw mooy application bi nga xam ne moo lay permettre nga organiser say données kooku moom da euh, dafa importance en fait kooku loolu application boobu ci Windows 10 bi la ñuy wooyee explorateur de fichier explorateur de fichier bi nag donc après dinaa leen ko wan nan nga koy ubbee ba pare donc yan pàcc moo ci nekk explorateur de fichier bi donc en général donc moom moo moom la soo xoolee si section médiane barre des tâches bi moom moom moo nekk ni application bii la soo ko soo ci cliquer rek léegi da ngay gis lii en fait euh, yi ngay gis euh, mooy euh, voilà donc moo lay wan en fait say ay dossier ak ay fichier gis nga kii par exemple dalay lay listeel dossier yi yi yi yi fréquent quoi yi ngay gën a utiliser donc yi nga yi nga mujjee utiliser en général donc voilà wala yi ngay gën a yi ngay gën a gën a visiter ok ces derniers moment yi moom la lay listeel fii nii donc fii aussi mu wan la par exemple ay euh, ay ay fichier ay fichier en fait donc fii nii moom fichier récent yi moo maanaam fichier yi nga mujjee ubbi aussi fii la lay wan <coughs> bon yeneen gis sama données mais grave man moom euh, amu problème boobu noonu donc fichier yi ngay euh, yi nga mujjee ubbi en tout cas fii la nekk fii la la koy listeel quoi <coughs> mooy fichier yi nga mujjee ubbi hmm? donc foofu la la koy listeel voilà léegi Euh, loolu noonu donc moom la lay moom la soo ubbi application bi moom la lay woon léegi application bi dafa donc am na ay pàcc yu bëri euh, am na pàcc bi ñu naan barre des barre des titres barre de donc barre de gisoo euh, turu application bi moo si nekk mais bu fekkee ne da nga dugg si benn répertoire comme tey par exemple su ma duggee si répertoire bureau fii nii gis nga donc tur turu répertoire boobu noonu moo ci nekk répertoire moom mooy donc benn zone la bi nga xam ne da nga fay denc ay données quoi donc dafa am ay zone yu bëri yoo xam ne ñoo nekk si si si ordinateur bi donc zone bu si nekk ak données yi données yi muy yi muy denc quoi pour nga mën a organiser sa sa information yi voilà donc barre de moo nekk nii donc euh, day am tour tour répertoire bi nga xam ne moom moo ubbeeku euh, moom la application bu ubbi ak aussi euh, bouton de contrôle yi nga xam ne donc par exemple bii nii moo lay permetre nga wàccee fenêtre bi bon lii la ñuy tuddee fenêtre quoi donc mooy interface bi nga xam ne moom mooy ubbeeku bu fekkee ne da nga lancer benn application donc lii moo lay permettre nga wàññi taayu taayu taayu fenêtre bi lii mooy permettre nga fay ko nga tëj ko carrément hmm? donc ma ñëwaat léegi fii nii donc moom la ñuy wax ruban bi donc ruban wala bar d'onglet su leen neexee barre d'onglet donc euh, voilà ay commande la yoo xam ne di nga ko mën a utiliser si données yi nga denc fii nii donc du ma dugg aussi si détail bi ndaxte bu ci nekk après foog ñu ñëwaat toj koo affaire yooyu noonu quoi donc euh, voilà dama leen di wax rek pàcc yi nu mu tudd léegi fii nii moom la ñuy wax ruban donc barre d'onglet donc dafa am ay commandes yu bëri euh, bouton bu si nekk benn commande la moo lay permettre nga def dara si euh, donc information yi nga sélectionné fii nii voilà donc partage ah donc affichage gis nga donc onglet bu ci nekk dafa am ay kii yu mu ay commandes yoo xam ne daf ko regroupé donc système bi dafa organiser wu ko donc c'est benn organisé am foo xam ne donc moom la ñuy wax euh, barre d'adresse ba dara comme par exemple soo duggee si benn benn répertoire dalay wax euh, répertoire boobu noonu ban adresse ban la quoi fan la nekk exactement waa fii nii moom la ñuy wax barre d'adresse fii nii barre de la bu fekkee ne da nga bëgg a seet benn information si répertoire bi nga ubbi mën nga fii nii <coughs> donc automatiquement par exemple da euh, euh, koy da koy da koy da la koy génneel ok voilà barre de recherche alors fii nii nag moom la ñuy wax volet de navigation volet de navigation da lay en fait nga jóge si benn répertoire bi nga affiché fii nii nga dem si beneen répertoire directement comme tey par exemple tey fii nii dugg naa si répertoire téléchargement dugg naa si répertoire beneen bon boobu noonu dafa existé tul donc dugg naa par exemple tey si beneen répertoire fii nii hmm, document par exemple pour gisoo fa revisiter leneen tu vois voilà donc fii nii moom la ñuy wax ay volets de navigation fii nii nag moom la ñuy tuddee euh, aperçu zone aperçu moom mooy wane en fait euh, li nekk si répertoire bi nga xam ne moom ubbi répertoire bi nga ubbi li ci nekk fii lañ la koy wane quoi fii lañ la koy wane ndaxte fii moo lay permettre nga jot ci benn répertoire fii nii su jotee ci benn répertoire répertoire boobu lim lim denc fii lañ la koy wanee léegi su ko defee yow nga def sa liggéey ci ci ci données yi nga xam ne moom nga nekk fii nii bu fekkee ne dafa affiché yeneen répertoire aussi mën nga dugg ci répertoire boobu noonu après nga nga nga nga def li ngay def voilà donc am na aussi fu ñuy wax barre d'état gis nga barre d'état moom moo nekk nii si suuf gis nga barre d'état bi soo ko xoolee bu baax de bi nga ubbi. en fait dalay lay wan ñaata ñaata élément ñoo si nekk ñaata information ñaata élément ñoo si nekk gis nga donc ñaata dossier wala ay données ñoo si nekk gis nga ak ak ñaata dossier nga si sélectionné gis nga tey par exemple fii nii damaa sélectionné benn donc su ma cliqué waatee gis nga sélectionné de tu vois donc yooyu yëpp après daañu si ñëwaat ay ay ay pratique la yoo xam ne euh, foog ngeen xam ko léegi gis nga fii nii soo xoolee si euh, si ruq bii nii toujours si barre d'état bi ah, donc lii da lay en fait Euh, euh, nooy afficher information yi éléments yi nekk si répertoire bi mu ubbi noo leen di afficher gis nga fii nii da nga koy afficher par liste gis nga donc moom lañ sélectionné soo cliquer fii nii gis nga donc ay icônes ngay afficher nii tu vois donc da koy afficher ce qu'on appelle en vignette quoi lu ñuy wax ay vignette moom nga koy afficher mais fii nii donc da koy afficher par par liste tu vois loolu noonu en tout cas euh, def nañ tour en tout cas ci ci explorateur Windows yi application bi nga xam ne moo lay permettre nga nga gis sa sa données yi nga xam ne moom nga yi dem sa xool yi benn donnée boo xam ne moom nga dencoon fen voilà alors euh, am na aussi dara lu important si système bi aussi moom la ñuy wax poste de travail poste de travail donc dina la permettre nga def yu bëri quoi donc poste de travail déjà noo koy ubbee soo poste de travail soo soo duggee si bi soo nekkee si bureau bi fii moo bureau bi pour euh, fàttali leen donc am na benn répertoire bu ñuy wax CPC CPC bii nii. soo si soo si soo si double cliquer <coughs> gis nga dalay wan en fait information euh, dalay dalay indi fii nii ñuy wax poste de travail voilà poste de travail fii nii en fait donc dalay listeel répertoire yi nga xam ne moom la système bi créé ok pour nga mën a organiser say information gis nga fii par exemple répertoire bureau en général euh, mooy répertoire bi ngay njëkk jot donc pour fàttali leen ne lii mooy répertoire bureau ok moom aussi dafa am benn répertoire bi lay permettre nga jot si quoi voilà donc fi nga xam ne moom ngay denc say document fi nga xam ne moom ngay denc say photo fi nga xam ne moom ngay denc say musique ah, fi nga xam ne donc dossiers yi ngay télécharger fi nga koy denc vidéo yi aussi mën nga ko denc fii nii lii aussi benn répertoire bu bees la bu ñuy wax objet 3D mooy objet yi nga xam ne donc dafa am volume quoi foofu aussi mën nga fa mën nga ko fa denc ndaxte 3D aussi dafa xew voilà léegi fii nag moom mooy disque dur bi disque dur bi moom mooy euh, périphérique bi nga xam ne donc information yi nekk ordinateur bi yëpp fa la nekk voilà donc euh, fii nii ngay kii nii léegi fii nii en fait dafiy affiché périphérique euh, de stockage mooy périphérique yi nga xam ne da ngay denc da lay permettre nga denc information wala nga information yëpp fii la koy affiché instant bii nii donc branché wu ma benn périphérique donc peut-être que su ma branché woon benn clé USB di ngeen si gis benn euh, beneen beneen périphérique bu affiché maa ngi branché beneen clé USB nii voilà donc branché naa benn clé USB gis nga clé USB bi gis nga donc moom aussi da koy affiché fii nii. maanaam lépp li nga périphérique yi nga matériel yi nga xam ne en fait da nga koy branché si ordinateur bi wala matériel bi nga xam ne donc nekk na si biir ordinateur bi di la permettre ngay denc ay information yëpp fii la koy affiché bu fekkee ne aussi lecteur CD la aussi soo amee sa machine soo amee lecteur CD aussi da koy affiché fii nii gis nga donc loolu noonu la ñuy wax poste de travail poste de travail bi aussi dina la permettre aussi nga gis ay information yu yu yu am solo yooyu daañ si ñëw si si si si voilà léegi dama leen wax léegi bu fekkee ne nan ngeen vérifier seen système maanaam bu fekkee ne jënd nga ordinateur nan ngay vérifier euh, mémoire RAM bi nan ngay vérifier processeur bi nan ngay vérifier aussi que ne yow Windows dis nga yor ah donc yooyu laa leen yooyu laa leen di wan fii nii ah donc léegi bu fekkee ne da nga bëgg a vérifier sa information système bi donc am nga am nga possibilité yu bëri mën nga def fii nii bon dama leen wan possibilité bu ci gën a bu si gën a simple mun nga ñëw fii si sa PC mooy répertoire bi nga xam ne si si bureau bi ah répertoire bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee sa PC soo defee clic droit si sa souris nga def propriété nga def propriété ok soo defee propriété rek da gis nga da gis information système bi information système système baa ngi nii ok gis nga information si baa ngi nii léegi si information système bi léegi dangay gis ne da gis ne fii nii par exemple da lay euh, dalay euh, da lay jox. Euh, ce ce ce ce système en fait version système bi gis nga man instant bi Windows 10 lay utiliser Windows euh, ok da lay jox aussi mémoire bi nga mémoire RAM bi aussi par exemple comme man sama mémoire RAM 8 giga la da lay jox aussi processeur bi comme par exemple man sama processeur i set la tu donc dalay lay wan en tout cas ay information yu bëri euh, yi nga xam ne donc moom moo nekk si sa information d'abord ci système bi ak matériel bi aussi da la koy jox maanaam mémoire donc ak processeur bi yëpp mun nga ko xam fii nii kon suñu lay jaay ordinateur pour nga vérifier sa euh, système bi ak matériel bi aussi mun nga ñëw foofu noonu mën nga taal sa ordinateur ñëw fii nii si kii bi nga def clic droit nga def propriété pour xam carrément sa euh, sa sa ordinateur lan mooy capacité bi quoi tu donc pour nga xam aussi lan la mën a denc soo ubbee fii nii soo xoolee disque dur disque disque local bi disque local bi da lay wan en fait. Euh, taayu euh, ñaata information euh, quantité d' information bi nga xam ne moom la mun a denc quoi gis nga donc loolu aussi da la koy wan donc processeur disque dur ak RAM bi aussi donc c' important ngeen koy vérifier ak aussi version système d' exploitation bi aussi c' est important ngeen koy vérifier te soo leen koy vérifier foofu ngeen di jaar ok voilà ngeen baal ma tuuti nag donc xam naa xam naa ne xaw naa xaw naa gaaw ndaxte dama bañ aussi def benn vidéo bu gudd ko Euh, voilà mais donc man aussi maa ngi leen di wax bu fekkee ne bu fekkee ne donc euh, vidéo bi internet sele leen bu baax donc da ngeen koy xool xoolaat ko xoolaat ko su ko defee ngeen euh, gën a mën a jàpp information capter information yi ci gën a am solo donc yi may yi may yi may yi may yi may yi may may jàllale quoi ok alors am na aussi benn partie boo xam ne dalay lay permettre nga vérifier pilote yi pilote yi donc moom mooy logiciel yi nga xam ne ñooy permettre système bi mën a reconnaître matériel yi nga xam ne da nga donc ñoo nekk ci ordinateur bi ko ok wala yi ngeen ni branché yooyu aussi dafa am solo donc foog ngeen koy vérifier di xool ba xam est-ce que pilote ñu ngi à jour nekk nañ à jour ba xam ne dinañ mën a méngóog euh, matériel boo xam ne donc bépp matériel bi nga xam ne branché ngeen ko si si si si si ordinateur bi wala donc matériel yi nga xam ne dañ ko dugal les composant mooy yi nga xam ne soo ubbee ordinateur bi da koy fekk si biir est-ce que système bi aussi mën na ko reconnaître tu donc pilote yooyu yëpp dafa am solo donc foog ngeen koy foog ngeen koy vérifier ok donc loolu aussi pour ngeen vérifier ko da ngeen ñëw fii rek donc def clic droit def pro def euh, gérer soo defee gérer après nga patiente tuuti mën na jël temps rek après ngeen ñëw fii nii dugg si gestionnaire de périphérique ok soo duggee gestionnaire de périphérique nga patiente tuuti rek gis gis nga fii nii donc moom mooy appareil yi nga xam ne euh, voilà. donc matériel yi nga xam ne soxla nañ ay pilote quoi tu donc gestionnaire de périphérique yi donc euh, voilà donc comme ay appareil photo ah donc euh, surtout fii nii ay carte graphique ok parfois nga installer benn application boo xam ne comme ay jeu vidéo yoo xam ne euh, carte graphique bi pilote carte graphique bi su nekkul à jour doo ko mën a doo ko mën a utiliser doo mën a jouer ok donc wala aussi ngay am problème mu carte réseau yëpp dafa am solo donc après ngeen di ngeen pour ngeen di vérifier en fait pylori yi yooyu yëpp daañu si ñëwaat ah donc euh, voilà euh, ok voilà donc lii aussi bon waxoon naa ko sànq ah, moom mooy fay ordinateur bi taalaat ko yooyu noonu donc loolu aussi soo ko bëggee def fii la bu fekkee da nga ko bëgg a fay fii la su fekkee ne aussi danga ko bëgg a pause fii la aussi soo duggee si mënu démarrer bi nga cliquer si bouton bii nii ok euh, si ruqu càmmoñ bi. léegi gis nga fii nii moo lay permettre nga def pause lii moo lay permettre nga fay ordinateur bi lii moo lay permettre nga fay ko taalaat ko directement voilà donc euh, loolu la loolu mooy mise hors bi voilà donc je pense que euh, pare nañ euh, pare nañ épisode bii nii ndaxte épisode bi dafa guddoon moo taxoon ñu def ko ñaari pàcc léegi fii la ñuy yem donc maa ngi leen di jox dox daje beneen yoon si épisode 5 bi épisode 5 bi daañu waxtaan lépp li nga xam ne donc moom la ñu utiliser souris <coughs> souris nga xam ne moom lañ gën a utiliser en fait suñuy liggéey si ordinateur ak euh, fichier yi maanaam données yi nan lañ leen organiser données bu nekk en fait donc lan moo ko war a ubbi données yi nga xam ne moom la ñuy euh, gën a utiliser ak dossiers yi dossiers yi aussi donc dafa am solo dossiers yi mooy lay permettre nga organiser say say données say information yooyu yëpp daañu ci waxtaan si <coughs> épisode cinq bi incha allah donc maa ngi leen jox rendez-vous donc très prochainement du yàgg xam na incha allah temps yi moom jàpp naa du yàgg léegi pour wax leen information yooyu yëpp donc euh, nan lay demee nan lañ koy utiliser ok bu leen fàtte abonné si samay chaîne YouTube bi donc pour encouragement yeeg yooyu noonu voilà donc euh, di leen jaajëfal si xool bi ngeen xool vidéo bi ba si càppandal ga donc ba ba muy jeex voilà donc euh, jërë ngeen jëf wala bu leen fàtte abone aussi yaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah Thank you.